You Allahu Akbar! Allahu Akbar! ربما ولك الحمد sëñ naa Youssou. tey waaw waaw waaw Serigne Ba waaw bi nag. waaw bis bi de santaat Serigne bi rek. ne niñ ko niñ ko bëggee woon Serigne bi ba ñu amele ko noonu. ci kàttanug Serigne bi ak mbaaxu Serigne bi. waaw di santaat Serigne bi bu baax a baax a baax. waaye lépp nag xasida la. macha allah macha allah jërëjëf sëñ Babacar. jaajëf kon Adja Maya léegi léegi nii léegi ba fan lañ ko. Cheikh Maodo Bamba ngi noot. Cheikh Maodo. waaye yéen a

sëñ Yirim macha allah jëriñ daa ngi jëf macha allah xidma tey jii tombeeg ñu euh, koy wax 12 ah, novembre. waaw sëñ bi noonu bis bi nga xamante ne waa Ahlou Khassida ñoo leen fekk si maanaam uh, ci bis bi ci liggéey bu tedd bi néegu xas beeg fulk beeg yëpp ñu ngeen ci waay yéen waa sant si bu baax baax di sant suñu jàmbaar si xam suñu mbàkk moom suñu son bi ndax lépp lu ñu am tawfeex gi ñu am dépp moom xëyee bis xidma tey ji def ko ci Ndakaaru fii ci Tëngéej le 12 sëñ bi wàcc bi le 11 novembre kon daanaka bis bi am na lu loo xam te nii daal dara na ci waaye ñoo ciy gën a santaat si bu baax baax ndax dëkk bi lépp lépp lépp lépp tey dañuy sant moom ndax li ñu xas dañu fi jàng jàng ak lépp di cant Sëriñ Tuubaa rek waaye ñun moom ñun moom ñun daal ñoo leen amal cant rek lii daal kenn mënu koo fay waaw sant bu baax baax sant bokk taal yi nekk ci daara bi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp barke macha allah sant yaay booy ñëpp kay moom bëgg nañ ci lool waaw moom bëgg nañ ci moom kawe na ni lool lool lool ñu <laughs>